wa الحبيب يميل على الوهاب جل تكرما على قمة المختار وهو أجيما You sëñ gi de boo ko xoolee kër sañ Basiru la woon euh, sëriñ Basiru pàkk bi moom moo ko wutaloon boppam defaraat ko boppam nekkoon fi timit euh, euh, gaa yu baax yëpp daan ko fekk fii moom sëñ Basiru moom moom moom moom pàkk bi Touba la. sëriñ Muntaxa Mbàkke mii fi nekk xalifa général de Mouride yàlla na fi yàgg loolu te wér moom it ba mu toogagul xalifa sax daa amoon mébétu yi yeesalaat kër gi defar ko ndax fonk gi fonk barab bi. moo tax bi mu toogee xalifa yéenam yëpp moo doonoon mu salaat kër sëñ Touba gii sa Ndakaaru macha allah ba nga xamante ne nii fi mu ne taalib bi bi fi ñëw danga nga bëgg. waaw loo gis nekk nag daan am na loxo ku mu jaar ndax ab taalibeem bu ñuy wax Mbaye Gueye euh, sëñ Mbaye moom la ko sëriñ bi joxoon mu doon ko liggéey lii macha allah moom kër gi mu mucc ayib lool ndax ku fi ñëw da nga xamante ne nii liggéey nañ kër gi ku fi ñëw tamit da nga xamante ne nii kër gi wax dëgg yàlla def nañ fi tamit alal. ku fi ñëw tamit da nga xamante ni matériel bu qualité mi ngi fi ku fi ñëw tamit da nga xamante ni wax dëgg yàlla liggéey bi ànd naag Pastef te ànd naag yéene ndax si biir ak si biti saal boo dugg def nañ fi ay climatiseur gis nga fii ma taxaw nii mooy saal bi nga xam ne fi lañ war a fi la taalibe yi war a nuyoo Sëriñ Muntaxa xalifa bi bu ñu nuyoo fii la xalifa bi di nekk saal bii ngay gis fi nekk nii def nañ fi ñaari climatiseur yoo xam ni yu mag la ba pare day amaat ñaari armoire yoo xam ne dañ ko fi defaat ba pare moquette ko loolu yëpp ngir bëgg rek taalibe yi bu ñu fi ñëwee duñu xat-xatloo du tàng benn benn coono di fi am sëriñ bi tamit kenn du ko sonal loolu moo tax ñu def fi lii saal bii tamit si yuñ yeesalaat si la bokk waaye ndaka jekk moom nii na waaye moom nag moo defaraat xar xarkanam gi ba mu mel nii tey mhm. incha allah ndax fàggu nañ loolu boo ko xoolee yokk nañ dalwaay bu baax a baax ndax barab bi yaata woon na waaye amutun ay dalwaay ndax bu benn kilifa ma sandal rek day day day day fees waaye léegi yokk nañ dalwaay yi nga xamni ne ne du muntu ñëpp fi mën a nekk nag waaye am kilifa yu bëré bëri yo xam war nañ fee mën nek ndax boko xolé kaw gi amutun te legui kaw gi yokk nañ ci ay dalwaay yo xamni yu mucc ayib ak ben saal bu mag bo xamni nit ay kilifa mën nañ fee nek yi ci suuf tamit defaraat nañ ko ba nga xam ne ay kilifa dana mën fa sa nek barab be ci nga xamni fa la khalifa bi war nek nekk momi moom it nañ ko ba nga xam sëriñ bi dana fa mas a dana fa mën a nekk te du am benn euh, jafe-jafe moom macha allah wax dëgg yàlla yokk nañ ba baliwaay bu baax a baax yokk nañ saal bii si li bees la bokk nekk fu woon euh, si li mbéy tabax si la bokk waaw saal bu mag la ci biir incha allah waaw saal la boo xam nii mën naa jël mbooloo mu bari def fii ay climatiseur waaw te dañ koy defal ba mu baax defal fee tamit terrasse ndax bunt bee nga gis si ginnaaw fi mu nekk nii teraas la boo xam nii mbooloo mu bëri bari mën nañ faa feexlu loolu tamit wax dëgg si yokk bi la bokk. waaw jàkka ji jàkkaa ngi fi woon ndax sëñ bi bu ngi koy liggéey dafa liggéeyal woon jàkka xam nga sa kër sëñ Tuubaa kenn du ko def te amutu jàkka waaye jàkka ji moom moo ko yeesalaat nii wax dëgg yàlla jàkka ji moo ko yeesalaat nii ne dafa dafa bëgg def jàkk joo xam ni jenn la te am na ni jumaa ji nekkee jenn mën naa wax ne jàkk yi boo ko xoolee jenn la fi ndax bi mu ko amee da ko bañ ba wooyi waa is bu tarxiya bu Hizbut Tarqiyyah ñoom ñoo ñëw def décoré bi yëpp liggéey ko ngir rek bëgg mu def fi jàkk jàkk joxe na ju mucc ayib la kër sëñ Tuubaa nag lépp looy liggéey nag jàkk dasee war a jiitu te lu te luy gën a rafet nag si biir kër gi tamit jàkk ji si la bokk ndax fii la sëriñ bi soxla te bi fi ñëwee tamit fii la soxla ku fi mën a ñëw tamit jàkk ji nga soxla bu looy def bu waxtu jotee da ko baay ñëw si jàkk ji jàkk ji dafa yàgg ndax sëñ Basiru la woon ba fa mu saa jógee di ko liggéeyaat mu liggéeyaat si jàkk ji la seigne Moussa bi mu koy liggéey tax da ko bañ ba daf ko liggéey lool ndax japp ne bu bu kër gi noppé ku tedd gi da fi ñew mu fexé ba jakk ji jégué appartement seigne bi motax jakk ji nek ci biir kër gi loolu mo waral jakk ji waye fi nek ni nii macha allah jàkk ji moom macha allah. appartement nak mom euh lu xawa kéman la ndax sëriñ Basiru tabax bi nga gis mom moko fi tabax ba biñu ñuy liggéeyaat kër gi sax sëriñ salim nangutone sax ku ko toj appartement be ndax lu tax mooy la ko fi sëriñ Basiru defoon bàyyi ko fi ñu koy barkeeloo nangutoon ku ko toj ne nañ ko yeesal sëriñ Muntaxa bi nga xamante ni ñëw nañ di lii di liggéeyaat kër gi moom it fa fa mag ñi jaaroon na lu jaar daf ne buñ fi toj dara nañ ko yeesalaat ndax barkeelu li ko fi sëriñ Basiru defoon loolu moo tax bâtiment bi nekk fi ba tey waaye ay bâtiment ngi fi te moo leen gën a dëgër te moo leen gën a rafet macha allah